foo teg foo togg foo toll ci kër gi dégg binneem muy bind nan gan gu baax mooy bëgg a dem foofu lañ toll kon laxsa laxsa la boo xam ne bu bu mat a jàpp la bu mat bu rëy ci lislaam la noonu la ko teeroo gi daa neexe waaye noonu la ko tàggu tàggu gi daa mettee ndax weer la woo xam ne bu ñëwee gëttug àjjana la ñuy indil kon ci turu Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne moom mooy alxalifatul am di taifatul muridiya ci laa leen di nuyoo di leen jot li sëriñ Afe Buso mi nga xam ne moo jiite daayiratul muxaddamatul xidma kàddu yi ma fi wax ci kàddu yi sëriñ bi la yoo xam ne moom lay jottali rek ci bis bu màgg bi ci laxasatu boobu al taarixiya boobu nga xam ne ci lañ toll muy di leen sant ci liggéey bi ni ngeen ko defee ci bi nga xamee ne si chahru ramadan dugg na ba tey ni ngeen ko rafetale ak ni ngeen ko yaatale ak ni ngeen ko dëppalee ak njàngalem sëriñ bi xol sedd na ci bu baax a baax a baax ñu ngi leen ciy jot li ngërëm ci turu sëriñ bi di leen ci jot li cant ci turu sëriñ bi ndax weeru koor dafa doon weer loo xam ne bu ñëwee daf ñuy indil xeetuk àjjana gëttuk àjjana la ñuy indaale te bu ñëwee ci xeet wi da ci indiwaat ak njàmbaar kenn ku ne mu indiwaat ci yow ruuxul fidaay nga mën a nga nga attan lu ne ci lislaam day yee it jullit ñi ba bañ bëggaat joxe ngir yàlla ak def ngir yàlla ak di màng waxtu yi ci ci di ci njëkkanteeg waxtu yi di ci di ko màng ngir bëgg bëgg cee def lu baax ak def ci ak jaamu yàlla te di ko def ci sa coobare boo ko defee it moom tereet la boo xam ne topp yàlla moo ko tax a jóg maanaam loo ci jaay day gaaw a jar ci sa digganteeg topp yàlla maanaam ni ni ni nga xam ne ni la tujjaar yi daay daay yàkkamtee mawsim kuy kuy yaxantoog suñu borom noonu nga war a yàkkamtee saxru ramadan ndax mawsimun li taati la mawsimun lil ibadati la loo ciy jaay rek day gaaw a jar ci sa digganteeg yàlla te ñun ñëpp tujjaar lañ suñ digganteeg yàlla in tuqridullaha qardan hasanan yudaa'ifu lakum yu zalli si yuqridullaha qardan hasanan fa yudaa'ifu lahu kon yàlla nu yàlla dimbale bañ màng mañ bañ màng ci aw yiw woo xam ne danañu jural buj koor gi jàllee ñu jële jëge ci jële ci ak defaru goo xam ne li des ci suñu dund dañuy sax ci ak njub sax ci istiqaamatu sax ci eh, imtisaalul awaamiri wacc naa bul manaahi ndax jaamu yàlla yëpp weer wi da mën na ko yéwénal day sellal bakkanit day boole xol ndax euh, ñiy fab seen alal di ko di ko def ci di ko def ci yàlla ñooñu taaliful xuloo bi dana ci juddoo day coobareel bakkan yi di ko jubale jëmee ko ci def lu baax jëmale ko ci birru te birru mooy lépp walakin albirru man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina waatal maala ala hubbihi sawil qurbi wal yatama wal masakin wa nas sabili wasailin wa fi riqabi wa aqama salata wa ata zakata wal mufuna bi hadi mu isa haado wasabirin fil basa wad dara wa hinal bas ñooñu la yàlla ne ñooñu def birru kon birru lépp a ngi ci day wax waxtu day loo xam ne it danañ ci yóbbuloo ab aw yiw di ci yóbbuloo ak ragal yàlla te yàlla waxoon na ci alquran wa tazawwadu fa inna xayra saadi taqwa kon lii mooy mbootum bu koor di dugg yonent bi na mu waxoon ne dañuy ubbi bunti àjjane yi tey tëj bunti sawara yi di njooñ seytaane yi te mooy way yi nga xam ne mu ci sadat boobu la sëñ bi waxe wax jii mu waxe ne yàlla boo dañ di far ay bàkkaar di faj ay aajo di dàq dàqu yeneen yi nga xam ne gënu di njoñ saytaane di may di indi ak may ci ñiy def lu rafet wa fan li sawil insaani bi safadi di de di di demal njàqare di yow mi nga xam ne yaay demal aw tiis di mbooleem lu ñu doon yaakaar ci at mi ci ci ci lu baax yaay ñëw di ñu ko dollil moom ko moom sax Ramadan kon moo tax bu guddee guddi gu njëkk gi rek bu ñëwee yàlla day yenent bi neen suñu borom day wax ak nit ñi ne yaa baaxiyal xayri yemmim wa absir wa yaa baaxiya sari aqsir wa absir yow mi sàkku lu baax lu baax gaawal jóg te gaawal bég waaye yow mi sàpp ab safaan gàttañ lul te xool ak sa bët ba yeewu xam ne li ngay sàkku mëtt sàkk kon bis bii waxtu wii weer wii loolee sëriñ bi waxoon sëñ demb Kebe rek moom lañ ci war a farloo te bu koor gi jàllee ñu ñu gën ko ci farlu dafa bokk ci tomb yi ma jëlee ci sëñ bi bu Mbàkke mu wax mu jëlee ko ci sëñ dembake bi mu ne sëñ bi daf daa wax ne dafa am bis mu génne wala takun min al gaafiliina hinda niyati wala takun min al gaafiliina hinda al xamali wala takun min al gaafiliina hinda al xawli ndax daal ne wala takun min al gaafiliina hinda niyati ndax suñu borom innahu xaliimun bi su sudur wala takun min al gaafilin amali ndax innahu bima taxmaloona basirun wala takun min al gaafilina hinda al qawli ndax xadd samiha kon weer wii loolu lañ ci war a jëriñoo booy booy wax bul sàggan ndax yàllaa ngi dégg yëpp ndax xadd samiha booy jëf bul sàggan ndax innahu bima taxmaloona basirun li ngeen di jëf yépp yàlla nga koy gis booy yéene bul sàggan ndax innahu alimun bisaati sudur innahu yaxlamu sirra wax faa li nga nëbb ak li ngay déy sax lépp xam na ko kon la ndigalu sëñ Tuubaa loolu yàlla na ci yàlla saxal bu ko defee yiw wu ñëw danañ ci am dafa safaan yi jëm duñ fa jëm saf duñ bokk yoon bay dajeeg moom yàlla na ko yàlla defal kon ñi ngi leen di sant bu baax sëñ Afe di sàkk di leen gërëm bu baax ci turu sëñ bi di ñaan liggéey bi nga xam ne moom ngeen doon liggéey yàlla def ko liggéey buñ nangu ndax euh, ku ne xam na ne ren jamono ju dafa tasanteeg euh, awtis am ci jullit yëpp ak ci réew yëpp sax kuy wax nag euh, gannaaw ab jullit nga jullit ngay ñëkk tudd waaye ci alwabaul alami yi la kon yàlla yàlla yàlla ñu ngi ñaan di ñaan yàlla yëkkati ko moom balaa bi ba nga xam ne dana jeex fépp ci àdduna ci dara daraje Sëriñ tubaab mi nga xam ne mooy suñ bunt ci suñ borom di ñaanit ñu ñun ñëpp ab jullit moom lu mën a ñëw rek wóor dafa daf ko war a dolli ak dëgër ci digganteem ak yàlla ab taalib lu war a ñëw da ko war a dolli ak ngëm ci digganteem ak sëñ Tuubaa kon ndax ko xool moom li mu daj rek lu ñëw dana woyof toy ci yow al muslimu lan yarkaha walan walla walan tasiiduhul mihanu illa quwa wa ab jullit dëgg lu mën di ñëw du sëgg du wommatu lu mën di ñëw ci ay tiis ak coono it du ko dolli lu dut ak dëgër ak kàttan yàlla na nu yàlla def ñuy jub booba jullit yàlla na nu yàlla def it suñu royukaay bii ñu yàgg roy ci moom ndax lu ne wan na nu bu ñëwee mbedd ma nga xam ne buñ ca jaaree danañ mucc danañ jàll jàllin wu rafet te loola mooy mbedd mi nga xam ne rek ci ko fi nekkal muy seex Muhammadul Muntaxa moom rek la ñuy jiima wommat ngir ñu jaar ci mbedd moomu yàlla na nu ci yàlla sóob te buñ ci soobee ñu bañ caa génn wa kullu haamin wa antum bi xayrin wa salaamu